njiit ngab ruuy seeni mboot ngab ne géej ju fer du ndox jamono jàngi weta wet ku deti jiitu te du njiit ngab ruuy seeni mboot te ne géej ju fer du ndox mbindeef yi yëpp a ngi gëlëm dënd bi yëpp ngi lëndëm baatin bi lépp ngi ñuulam saayir si lépp ngi ne jalax wali yi yëpp ngi salaw ndamba yi yëpp ngi ngelaw borom dogal ba day nelaw taate yaa nga mu walax sëriñ Tuba alal ba jëm fi ne bëre diw nit fan tiw tam xarit laata yëpp na xarit góor ak jigéen ñi daw ba xëx xel yi yëpp gën na weret ma wa na geret nooxoon kooroog ma ne ndax yàlla dootuma torox sëriñ Tuubaa demam ko ump na mbindeef te wum na bopp kuy mbindeef ku dul malaaka yëkku fa yàlla ñamu ko wax yeneen baagalu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér deminu yonel la ko jox la dali jurbel ba këram malaaka sappe gorom di ko bijanti di gërëm te sabal di way de ya jokk woon te moom te ne xiim ku ne di teeru na borom xiiwal yi ñëw mu dinu jox ba meli tuba ya di mu topp leen di leen ramu mbira kërëy ba faf la ba ku ca xam lëf du ko wax garib su baa ya di sikar suufam yaag ndox ya di ser saayir sa lépp demu na xar baatin ba lépp ne fayax Njurbel moom di jooy tax yene yang defi mooy ci àdduna ka mën njuuy te mën wor te mën nax tubaab yi sax te seeni taax kenn xamatul lu doon sambaax baykat ya geddu seeni paax wate ya fenqo dara jax sëriñ Musaa ne keroog kenn xamatul kuy sëriñam kenn xamatul kuy taalibaam góor dootu faale waa këram laa samu mel ab xetax luy doomu aadama ngi jooy dina yi jëblu woon di jooy sunaa si yoneen ba di jooy lislaam jiret ba far di lox malaaka yaa ngi war di jooy suufi juróom ñaara ngi jooy ta samaaw yëpp ngi jooy ngir xamaguñ fu waaja dox weeri fukk ak yaar ngi jooy bis juróom-ñaar ngi jooy cër juróom-ñaar ngi jooy ba ahlu badri ñi sax juróomi julli ngi jooy way wutaante yaa ngi jooy jant beek wi di jooy saa yëpp yëpp a ngi ma yëpp ak ne gorom ñax mi soxoon saane kayam gàccax gi ànd na kayam garab yi yenn xob ku ne di goy goylu di jooy mag di xalam mbiram ba ñi mel ne man di wax ne wooy seen mbir ya dootul mata wax jigéen ñi rët bayi falam mu murid yi dof baykayam mu ñële di yuuxuy balamu kuy jéem a jëf fab ne sarax ku ne bara fab ne naram jinde yi yëpp na xaram njërim bu nekk tëj karam ñale di rab rabi du boo xaramee ngeen ji mbindeef bisamba ndax nu mën a giif akula faaw yakuuf te xam ne addina du sax ba yonen ne meles saaba yépp na taxas ababakar sadiqa des wa ma muhammadun la te dafa gëm ba ba sooy te teewu muuru di jooy ndaysaan ba xel ma del see ne suul ku dul ko bindoon du fi sax sëriñ ne ne na ngee jëdee koroog ku nekk fàtte say barak ruu yëpp faatu nañ karaag suñ yee fi des di dox ji wuutu jooja waay yi gaaya wuutu yooya gaay mi mbira wuutu mooma waay mi mbira rëy ba weesu wax ji wuutu jooja ya gaay mi mbira wutu moom waay mi mbira rëy ba weesu wax sëriñ Musaa ne déglu ma lim fi ay yoo xam ne kenn dootu ko am li des ci duniyaa ca kanam ndox saa fi tey mu ndox moo jaaku deeti feeña feeñ ba Màkka ñëw fi di ko jiiñ yonen ba gànnaar di ko teeñ mu far di joxi sarax ñii di ko jox ay addiya ñii di tawaat si àddina ñii mbiri alaaxira ñoo bañ wuy si David dox sëriñ fay fi di ko labe ya ñëw fi di ci jaam ku ne di barkeelu ci moom mu fees fees ba mel ne dex muy jàpp ca doy defi saax di famp xol ya ba mu weex génne ca àdduna ak bànneex seytaane ak bakkan mi tax moo jaa ku deeti jëf lu jar yonen baakalu badar ngeen jaxasoo ci yëpp mbir ba faa fi jam ñu di la rax arsi jaayu ci mbindam malaaka sabal ngir mbindam iblis la ko jiw la ndam li ma araf di melax muy dox ci jaw ni njanaaw samaaw lu wax fa diwaan ñu ne waaw waaw ñu ne waaw muy fal di fali ci lu sax di soppiru ya di defar di jàpp ñaaw tef ya di far di yokku dig ya mu sar di gàddu tiis ya gën a weex moo jàkku deeti xam le weer ci bis bu niis bu bañ leer ci gàmmu mbaa ci weeru koor ba sunu xol yi bañ nax moo jaaku deeti fekk balaa tey xamle waxtu wa balaa di ñëw ci nit ñi ba balaa ak si mu sàkkuluy sarax moo jaaku deeti wax murit lu koy fegal pexem marit di soppi daf mbaate balit muy cam si yaawuta farok ku safaraati raggi xol ku deeti farti xol ku dooti xoole gëti gis lu kenn dul mën a wax ku dooti dundal guddi yi bëccëg yi yëpp waxtu yi mbedd yi yëpp a yi foo tollu gis mu di fa dox fu ne mu def ab jullikaay ku ne mu boole la ki gaay digal la teg la fib jataay te du war te du la nax di jiite waxtu yi juróom duute mukkute du tiim yi saf nay garam ajaayibam saf nay warax alhamdulilahi na ngeen sant borom aras mi leen tabal ci ngiram yi ta ngeen gis ko mu gis leen ngeen di wax alhamdulilahi ndegam tuuba di makkay aji ku yéene aj tamul la dem nafa siyaare ji to ku xam ta xamee jamonoom na xam ne yàlla kiinu maam moo boole penkom ak sawam te yori mbootam di walak alhamdulilah yéen da ngeen sant ki mu jege leen dogal ba jiitu si na ba rek nu ko jox mënoon na noo dëgg cangaay wala cappaandaw ak ci gaay wala nu faf dëkk caxaay di xëy di gontu di ko dox mënoon na ko defi gabang nuy fay paas yori bong wala mu dem bane ne nu meŋ ba kenn du xam réew yal na bu sunu ruuy dinaaw sëriñ Moussa ne yal na bu sunu dinaaw di wuy ji yàlla nii njanaaw yal na ñu dal fa nga boole leen far ne yal na ñu rob fa balaay sa kuréel ba ngay bokkalu gaaw te nu mbég mu gën gaaw xifi nu ban ba teg kon allahumma sali alaaw sayyidina babil xulaa bi aqi xaidil malaaw yorom nu boole nu sarax jaaraama ibrahima faal làqu bi seexi Bamba taal leeral nga réew mi yaa ko maal yàlla nga dolli bërëx jërëjëf sëriñ ba dañoo ngi siyaar di ñaan suñu borom guddal fan wéral cër yi ak mbooloo mi fi teew yëpp liggéey bi yàlla nañ ci daje ngërmel sëriñ Touba barkew sëriñ bi jërë ngeen jëf jërëjëf jërin kontaan nañ lool salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ndigal jóge ne maam Ibrahima Fall mii nee na képp ku nekk ci bitti nga dugg si biir salle bi dañoo bëgg a commencé kilifa yaa ngi ni toog ñu ne ku nekk ci bitti nga dugg si biir dañoo bëgg a commencé bisimilah jëwrin ñu barkeelu ci bis bi rek lu gàtt rek comme kilifa yaa ngi toog euh, maam Ibrahima ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam. yàlla na yàlla wéral ay cëram bis bi yàlla na ci daje ngërëmul maam Cheikh Ibrahima Fall barke borom Touba yàlla